wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal ci xalif général kulu murit Cheikh ngi ñaan mu yàgg lool te gis ngeen nag rakkam ju tedd ji dend ak nun di alaaji sëriñ tàkku mbàkke moom Cheikh Mat Fadal mbàkke ak sëriñ abibu mu Cheikh Fat Cheikh Mat Fadal mbàkke ak moom sëriñ abibu ak waa Touba ca kanam yépp Touba ca kanam bi nekk Italie yépp ngi nii waaye le 24 décembre nag ñoo ngi jëm France Mbàkke yàlla nañ ca yegg ak jàmm ku ñuy fekki France mooy soxna Ami Njaay mii bàyyi faalu maam jaara soxna Ami yàlla Njaay mii jiite daayira Subulatu Salaam waaye nag xam ni Touba ca kanam ñépp a ci war a bokk liggéeyal ko Sëriñ Touba mu woote ko le 24 décembre ca France moo yëgal ko it jigéeni France yépp ñu nekk ci daayira maam jaara yaag yépp ak ñee nekk ci café diaspora bi kenn desul ñëpp ko bokk liggéeyu Serigne Touba la soxna mi Njaay woote na ko ànd na kook ñoom amul xeej amul seel ñëpp la ko bokkal tàllal na loxo it jigéen ñëpp na ñëpp ñëw tàllal na loxo Touba ca kanam na ñëpp ñëw France góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn waaye xam nga nag soxna Bali Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa jàmbaari maam jaare ñu tudde ko ko ren da ko jox ci bis bi cër bu mag moom dana ñëw ànd ak waa Touba yëpp soxna muslim Mbakke moom sëñ Mor Moussa Falilu sa mag ja daayira bi mu yore di jàmbaar lool di liggéey sëñ Touba ak jigéen ñi ko bokkal ñëpp waxtu yi dafa xat waaye Abi Njaay bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn woona ñëpp képp ku yaakaar sëriñ Bamba bëgg a liggéeyal Touba ca kanam tàllal na la loxo Touba ca kanam nag ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem kon bu feeñee mu takk ndiggam walbatiku war teeru sëñ bi war a liggéeyal Touba ca kanam ñëpp ca war a jàpp Touba ca kanam Ami Njaay moomu ko kenn moomu ko sëriñ tuubaa moo ko moom kon na ci ñëpp feeñ ci lu baax di ko yëgal taalibe yi ca Ndakaaru yépp lépp yem ci Touba ca kanam te te ca kanam ca lay tàmbalee Touba ca kanam ca lay yem bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn ñi ko yëgal ñépp looloo tax bi ñu ñëwee tey fii ci Italie fii ci Wareef fi la ñu defee appel bi Serigne Tàkko toog Soxna Ami Ndiaye toog waa Touba ca kanam toog sëriñ Gueye ku ne xam ko Touba ca kanam waaye nag nekk Londres sëriñ géey moom fu mu mën a nekk. sëriñ Touba ca kanam rek la fa nekkal moom it dana ñëw ànd ko ak sëñ Lebu Sekk ak ñuy ko bokkal ñëpp fekk si waa Italie ak li nekk ci Europe bi yëpp ñu daje France le 24 décembre liggéeyal ci sëriñ Touba ci Touba ca kanam ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu le 24 bu kenn manqué. aouzu billahi sami alim mina a rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah barke borom Touba barke borom gaawaan. asalaamaaleykum wa Euh, bu ñu yëkkatee kàddu ci ndigeelu sëriñ alaaj tàkku mi di ko yàlla saa boroom bàyyi ko fu mu yàgg lool te ànd ak wér ba yéene gi moom ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi mu def ci lu kawe waaye dafay kenn koo xam ne ci Touba kanam wax dëgg yàlla mu ne su koo ñàkk gërëm ndax bi Touba kanam feeñ ak léegi daa jël léppam mboolem loo xam ne amoon na ko moo xam ci diaspora bi la moo xam ci Sénégal lépp delloo na ko Touba ci kanam kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan saa borom dëgëral ko ba lii mu gis ci Touba ci kanam ndax ñun dañuy làmbatu rek waaye moom da ci am yàqin ci ne liggéey Serigne Touba la moo tax mu mel ci ni mu ci mel kon yàlla na saa borom mottali sa yéene dañu ànd ko ak yow. di dellu du jaajëfal baax suñu bàyyi Baye Ablaye ci bés bu mag boobu muy annoncé café diaspora ca Paris te nga xam ne sunu jigéen ju baax ji di bàyyi bàyyi faalu maam jaara soxna mi Njaay di ko woote waaye ànd ko ak géeru yi ca kanam ya nekk ca France ndax xam ngeen ne France Serigne Mouride Ndaw di coordonnateur général bi ak sëriñ Khadim Badiane ñoom ñoo ko fës yéene ànd ak moom ak mboolem ña nga xam ne ñooy ñooy jàpp ci liggéey bi ngir fës yéene wone Touba ca kanam Touba ca kanam nag day liggéey boo xam ne murit bu nekk war nga cee feeñal sa yéene loolu moo tax bëgguñu kenn ku ne yëgguma ko woon wala dégguma ko fenn ba tax na lépp loo xam ne ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi xam nañ ko ci fës nañ ko yaatal ci mbokk taalibe yi ndax ñëpp ci war a def seen ñaq ndax day liggéey bi Sëriñ Tuubaa boo xam ne amatul werante Sëriñ Muntaxa moo waxoon ne yàlla ko saa borom dëgëral moom te mottali yéeneem daa wax ne am naa ci yaakaar ba mujj mu ne am naa ci yaqin dellu wax ne lépp loo xam ne sëriñ bi wax na ko ci Matlabul Fawzayni gëm na ne Touba Ca Kanam lépp dana ko def kon day mel ni liggéeyub sëriñ Touba la buy doog a feeñ comme ni ko jàmbaar ji mag ji di ko waxee sëriñ Moustapha moom sëriñ Saliou day wax ne sëriñ Touba daa liggéeyam day ak sor waxtu nekk ak la muy wone kon waxtu yii nii Touba Ca Kanam la wone kon na ci murit yëpp jàpp ñu ngi leen di oo fële ca France ci Paris ànd ak Baye Fall Maam Jaara Soxna Ami Njaay ak sëriñ Murit Ndaw ak sëriñ Xaadim Badiane bu ko kenn wuutee diaspora bi ñëpp la ñu woon nag bu kenn wuute. soxna Aminata Doucouré moom itam day jàmbaar ca France ci tubaa ca kanam Ami Ndiaye ngi koy woo mi ngi koy woo ko yëgal ñëpp ndax Ami Ndiaye moom bàyyiwul kenn moom daf ñu ñëw leen ñu ànd liggéeyal Serigne Touba jaar Touba ca kanam buntu la boobu ku ci jaar yegg ca Sëñ Bamba ñëw leen ñu ànd dem ca buntu ba kon nañ ko fonoo te jàpp ko te kenn bañ koo wuute. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. man Amy Yalla Baye Fallou Maam Jaara Paris maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo beeg ziar bi suñ xalif général sëñ Mountakha Bassir Mbacké di ci teg euh, Alaaji Fallou Tàkko mii di fi sëñ Touba tey di fi suñ sëñ fii tey ci jataay bi may ñëw nag ci appel bi ñu def fii léegi bi nga xam ne liggéeyub sëñ Touba la bu mu nangu di café diaspora bi ñuy organiser Paris 24 décembre ñu ànd koog waa Touba ca kanam nuru daaray ni di ci woon ak ñëpp ànd koog waa daayira subul salaam euh, soxna Fat Ndiaye soxna Ndey Mari Jaw Mante la Jolie soxna Ndey Fall soxna Xadi Mbaw ak soxna Alima Doucouré ca Marseille ànd ko itam ak suñ coordinateur u Paris sëñ Xaadim Badiane ak suñ coordinateur u France sëñ Mourine Ndaw ak soxna Fat Thiam soxna Xuri Ngom soxna Caara Mbooj jàmbaari sañ Touba yooyu nga xam ne ñoo bokk liggéey ba ca France ñu ànd bëgg a liggéeyal xaadim rasool ci 24 décembre bis bu exceptionnel ci biir ci biir Paris nga xam ne bu seen pexe juboon tey tubaab yi tey kenn du wax sëñ Touba waan tey Bamba fépp ñu fas yéene liggéey yëkkati liggéeyam bi bu baax ca biir Paris asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuma kenn. seytaane rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jéggalu kàddu yi ñuy yëkkati ci suñu kilifa gi di sëñ tàkko di jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu joxoon na ko góor yàlla yi ci biir yëpp ak soxna yi nga xam ne yi ci biir barab bi yëpp appel bi nag lii la muy café Touba gi nga xam ne moom la soxna Ami njaay di def ci Paris moom lañuy woo képp koo xam ne si danga bokk ci fédération soxna maam Jaara Buso fii ci tuuba ci Italie ci turu soxna Ami sàmb soxna May Njaay ak soxna Awado ñu jottali ko képp koo xam ne yaa ngi ci fédération soxna maam Mariama Buso bi nekk ci Touba itali ñu teg ko ci suñu loxo man ak soxna Ndey Kebe kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne képp koo xam ne dégg nga annonce bi rek mooy sa carte invitation kon nag ñoo ngi sant ñëpp di sant suñ jëwriñ yu góor yi di leen ziar teg ko ci loxo sëñ xaas sëñ baay xaas mu jottali na ko képp koo xam ne yaa ngi ci biir Touba ci kanam rek jërë ngeen jëf ñoo ngi jégg lu baax ci kàddu yi di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yal na ko fi yàlla yàggal te may ko fan wu gudd ci barke Seydina Mohamed ba naal yi mu naal mu yeggale ko ba naal naal yi mu yeggaleegu ci université bii nga xam ne si da ko da ko sumb yal na ko ci yàlla defal tawféex ak wér ak képp ku ko yéene ci barke Cheikh Khadim jërë ngeen. dégg ngeen ko bis baa ngi noonu soxna Ami soxna mii toog nag ànd ak daayira subulatu salaam soobu ci liggéeyal Touba ca kanam liggéeyal sëñ Bamba rekk la doon moom la xam moom ci lay xëy ci lay gont moo waa France yépp kon nag dégg ngeen ko. waxtaan wi rafet na lool sëñ Abo Boussa kooku nag day jàmbaar ndax Abo Boussa ànd na ma ak moom dem Mali ànd na ma moom ñëw Italie Abo Boussa du tay du sonn moom itam ñu ngi koy woo ci bis boobu mu ànd ko ak waa diaspora bi yépp kon ñu tàllal nag sëriñ bi ñaan wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat